boo koy jëggaani maanaam contrôlé woo prix yi moo tax d'ailleurs bu ngeen xoolee gouvernement bi at yi day sonn parce que à chaque fois mu bëgg a téye prix yi lenn rek lay def ay politique de subvention ñun nag ñu jàpp ne de façon structurelle lii mën na régler problème bi du dara lu mooy souveraineté alimentaire maanaam Sénégal di bay li muy dundee te nag di dundee li muy bay te loolu mënu na ndax ci wàllu mbay ñun ñi xam na ne li ëpp ci li Sénégalais di dundee ceeb la te tey jii nii daanaka un peu de 40 pour cent di ceeb la ñuy produire fii dama koy faral di imagé di wax ne boo tiimee sa boolu ceeb boo lekkee fukki kuddu juróom-benn juróom-benn yi bitim réew la jógee kon nag juróom-benn yooyu jógee bitim réew. boo ko lekkee yaa ngi dooleel baykat bu nekk bitim réew pour pourtant am nañu suuf am nañu ndox am nañu doole lan moo manqué baykat yi pour suuf si pour ñu mën a bay ceeb surtout riz irrigué mooy dooley def aménagement ak dooley mën a jënd intrant ak dooley mën a am matériel agricole gannaaw loolu it Sénégal de façon générale nawet bi ñetti weer ñeenti weer ñu bari buñ paree changé activité dañoo war a bay noor di war a bay nawet fépp nag bu nawet bi ñëwee nga jël ci taw bi bu noor bi ñëwee nga wuti beneen ndox man na nekk ci ndox mi jaaxal Jurbel nii ba ngeen jàpp ne mën naa yàq mais loolu ndox ma mën nañ ci mën nañ ko utiliser pour bay ci suñu programme ci souveraineté alimentaire dafa ànd ak maîtrise de l'eau Aly Ngouille Ndiaye de woote na. bu yàlla tegee ci bopp réew mi. yoon yoon yu leen di mën a désenclaver te ñu ne ko moom laa jël engagement ne ko fi def. bu di tonn candidat tànn leen candidat boo xam ne bii am na xam-xam.